yii may bëgg a wax waxtaan rekk laa ci jublu waxtaan woo xam ne dañuy fàttaliku ndax nu gën a mën a yokk sunu liggéey lépp itam dañu koy delloo rekk sëriñ bi suñu aatu ak bokk yu baax yi mu àndal li ñu def jëru sax wax ndax jëf ji jiit jiit ànd nag lépp waaye nag nu waxtaan rek ci sëriñ bi yow Cheikh Mahamadou Bachir ak eh, Cheikh Saleh mën ngeen fi teewal mboolem ku ñuy tudd ci sëriñ bi yéen leen fi teewal ndax jataay bii day day loo xam ne ku ñuy tudd ci sëriñ bi rek waroon na ko teewe waaye nag ginnaaw noo ngi fi ngeen yéen ñaar ñi ngeen wettali ma ci ak bokk yi ñu bokk sëriñ bi yéen a ngi fi kon mel na ne jataay bi ñëpp a bokk ñu tuddi sëriñ sëriñ Tuubaa nag ñoo ñoo ñoo si jiitu ak bokki bokki taalibe yii nga xam ne tey ñoo waral jataay bi mi ngi tàmbalee ci fàttaliku te lépp ci sëriñ bi lay dellu ngeen seere ne ngeen seere sama digganteeg suñu bokki taalibe yi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom du man du ñoom lépp sëriñ bi ni ni ni man dox ànd gin ànd maa ngi ñoom déggoo dox ci biir ak ci bitti ba ci jataay bii loolu du man du ñoom sëriñ bi kon ni ma ko mën a tudde mën naa ko tudd mën naa koo tudd ci ñaari tur ànd giima ma ànd ñoom ba ci jataay bii fa mu ba ci jataay bi ca ndorte ba ci jataay bi loolu ci wàllu sunu borom dafa mel ne sunu borom da cee namm gën a feeñal mbirum sëriñ bi loolu ci wàllu sunu diggante ak sunu borom bu dee suñu digganteeg sëriñ bi nag dafa mel ne sëriñ bi da cee jublu feeñal ci boppam waxtaan bi mën naa gàtt noonu rek la demee du man du yéen sëriñ bi rekk la amul menn xel mu mën a xalaatoon ne sama digganteeg yéen dana agsi jataay bii amul menn xel mu ko mës xalaat du man mu xalaat ne jataay bii dana am sama digganteeg yéen mu te nekk dañoo am tawfeex ju réy rek noog ñu bokk sëriñ bi ba mel ne dañ cee doon dara tawfeex juree rekk la seen yoon nekku ci sun yoon nekku ci lépp sëriñ bi xool leen ko bu baax fanama fa tàmbaleeg ñoom te kenn wuuma fañ ko tàmbalee ñoom te kenn santu leen ko diir bu gàtt lu daje ma ak ñoom ànd àndi du rafet bi nu ànd ba ci jotaay bii loolu loolu loolu yoonu xelum doomu aadama nekku ci loolu loolu nammeelu suñu borom la bu mu sëriñ bi loolu jublu sëriñ bi la bu mu nammal dong la deme dama koo gis gisee nu leer ne noonu rek la deme ma wëlbati ku gisaat ko nag dana eh, karaama jëf ju rëy ju baax mënu ko weer loolu ma ne na koo tuddee ne karaama la ñu bokk ci karaama yi sëriñ bi dégg na ngeen déglu seet li ma leen wax li ma wax bu baax baax baax noonu rek la demee ana li ci des lu ci des sant bu baax a baax a baax boo xam ne mënee su ko wax ci làmmiñ mënee su ko feeñal ci xol xajul ci xol ca googu cant la war a def la ca dolliku mooy yeesal sunu jaayante nun noonu mboolem ku bokk koo xam ne euh, sa sa sëñ Tuubaa mi ngi ci sa xol waxuma laa nag ka nga xam ne dafa dafa dafa jaayante dundam gépp mu jaay ko sëriñ bi te yàlla tax sant cant gu rëy ak yeesal sunu jaayante ba mu bees peq fas yéene koo wii di ko dund ba kenn ko ne ci noonu wàccub liggéey ñan wuutu ci ci lii nekk ca loola ba wàccub liggéey ñeneen wuutu nekk ca loola muy demee noona ba bis nañ ci di ndemal sëriñ bi noonu rek la demee Cheikh Mahmoud Bachir dañu saale maa ngi leen di seeral kàddu yi xanaa loolu sax daa dara waru cee desati xanaa nag xanaa xanaa xanaa sama jantu bopp ak yéen ah looloo ci des sama cantu bopp ak yéen nag ma ngi jël sama biiru cant sama diggante ak sëriñ laa ci mën a dolli kon nag nan dem rek maa ngi labiré di soññe ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngi ci sa xol da nga yeesa jaayante woon gannaaw lépp jëm ku jëme ci jëme ci sëriñ bi te sëriñ bi moom mu sa jëm ci dara lu borom xanaa bi mu ko joxe ne yonent bi mu wéy ci ndigal ba ndigal la la ca borom bëgg mu mu defee ko ni sang bu baax ba mu defee mu liggéeyal ko ba lam ca bëgg mu defee ko loolu rek moo di dundam loolu nag mooy suñu ndono buñ ko xamee ak buñ ko xamut jublu ko suñu lépp suñu képp kàttan loolu bokkoon ci li yi ñu gën a jig ndax dañuy defaral tey defaral nu ëllëg kon nanu góorgóorlu bu baax rek waaw nanu góorgóorlu bu baax rek sunu kem kàttan kenn ku ne ne waxtu bu xëyee noo gumu noyyi na ca na ca boppam jëme ci yoon bi rek yoon wa rek loolu rek la li ci des mëne su ko wax loolu laa ci mën a wax <laughs> tubaarkalla liggéey bi liggéey bi liggéey bi moom dara mënuñu ci mënuñu cee bett da cee jëf ji rëy na lool jëf ji rëy na lool ndax benn taalibe bu ne bu dëggal bu ne loolay xemeem téefam loolay yitteem kon liggéey bi moom fa tabarakallahu sëriñ bi borom liggéey bi moom moo gën a gis man mi ci teg sama bët nii borom liggéey bi moom moo gën a gis moom moo gën a xam fi mu jógee fa tabaarakallaahu réy na lool waaye eh, waxuma la waxuma la ku aju ci sëriñ bi waxuma ku aju ci bi waaye jullit bu te te te te te nga gëm dëggu ci moom lislaam dëggu ci moom ihsaan dëggu ci moom kum ci mën a doon rek noonu rek la demee ma doon bëgg wax moo di rek euh, waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu mën a doon jëf diggam ak boroomam boroom yombal na ko yombin woo xam ne mënee su ko miyaa misaal yàlla boo yéenee rek te defoo dara yi mu fay la dencal la ba fa ko gën a soxlaa boo jëfee mu tàmbalee fukk benn yiw mu tàmbalee fukk yow fukk lay delloo fukk yooyu ab tàmbali la man nay dem ci sa ci sa jublu ci sa yitte mën nay dem ba doon ay junni moom benn boobu mën nay dem ba doon ay téeméer doon ay junni kooku mooy borom lépp te du jeexal dara jullit bu ne jëf leen teg ñoom bu dee ñetti daara yooyu quatre millions lañ amoon joxe nañu quatre millions deux cent kon alhamdulilahi rabbil alamin jëf ji gisees na ko waaye sëriñ bi moom a ko gën a gis mooy borom liggéey bi waaye moom itam kam doon liggéeyal moo ko gën a gis kooka itam ka ko yebaloon moo ko gën a gis kon nan sant rek te soññuwu nan sant rek te soññuwu bu nu geesu bu nu taxaw yàlla yàlla mi dara tawul nag yàlla noonu yi ma wax yàlla noonu sunu borom muy jëf ak dindi gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi ndax lii nu am lépp tawféexi sëriñ bi moo na ko may ci la ko jaarale kon yal na nu gën a gàtt nag tawfeex sëriñ bi ban mën a gën a jublu mën a gën a jéegu bañ a dëpp bañ a geesu bañ a taxaw yal na nu ko suñu borom defal moom mi defa ko dindi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi akub ngartanoom moom yal na nu sëriñ bi gàttanu boppam gàttandul nu gàttandoo nu gàttandul nu boppam ak ngërëmam te womatal nu boppam ba fa ko tax a jóg allahumma amin yàlla